Euh, nous commencerons déjà par féliciter quand même les forces de défense et de sécurité euh, parce que la cérémonie de ce matin, avec euh, l'énorme quantité euh, de drogue aujourd'hui à incinérer, qui avoisine quand même euh, les 1 tonne 500, montre effectivement euh, qu'il y a une vivacité dans la lutte contre le trafic de drogue. comme l'a rappelé tout à l'heure Monsieur le gouverneur, c'est un combat qui est permanent et perpétuel et qui appelle effectivement l'implication de tous. Et maintenant, moi, aujourd'hui, euh, je souhaiterais <coughs> quand même euh, appeler surtout euh, les forces de défense et de sécurité euh, à une autre vision. C'est-à-dire, euh, c'est bien euh, de saisir toujours la drogue, effectivement, aux, aux, aux Euh, néfaste dans notre société. Mais je crois savoir qu'il faut de plus en plus euh, faire de telle sorte que pour nos officiers de police judiciaire, essayer de traquer les trafiquants de drogue dans leur dernier, jusqu'au dernier retranchement. C'est-à-dire saisir le produit qualifié drogue est une bonne chose, mais aussi essayer de dépouiller le délinquant, c'est-à-dire rechercher son, son patrimoine y mettre la main là-dessus ça permet quand même aussi, c'est une autre forme euh, d'annihiler effectivement toute velléité euh, pour le délinquant de profiter effectivement euh, de son crime. Donc moi, j'en appelle les uns et, les autres vraiment à changer un peu de paradigme. Euh, saisissez, c'est vrai, le produit de la drogue, mais recherchez aussi tout bien euh, dont le trafic de drogue a été le produit Euh, la loi le leur permet, donc il faut utiliser cela. Une, et ça permet effectivement d'accentuer l'efficacité euh, dans la lutte euh, contre la drogue. Maintenant, de notre côté aussi, euh, comme mes prédécesseurs l'ont rappelé, euh, du côté du tribunal aussi, nous, nous, nous, nous effectivement, nous saisissons euh, les conséquences graves que la drogue a sur notre jeunesse, de par euh, les questions de santé mentale que l'usage même de la drogue pose. Et en passant, euh, nous appelons aussi euh, l'État à davantage euh, euh, accélérer peut-être le dispositif de mise en place euh, pour mettre en œuvre véritablement ce qu'on appelle des structures adéquates pour euh, les, les malades. peut-être les usagers de drogue qui en sont devenus des malades, pour un traitement efficace, vraiment pour sauver notre jeunesse euh, de, ce, de ce grand méfait. Donc, euh, voilà, donc merci, ñu nous l'avons dit, remercier monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, ak euh, kilifa yu fi teew yëpp ci seen euh, déplacement tey ci cérémonie bu mel nii bu am solo boo xam ni dina wone déjà njàmbaar tey bi nga xamante ni sunu force de défense et de sécurité yi moo xam douane la moo xam police la moo xam gendarmerie la ñu ngi koy def fii ci région bi pour wax dëgg yàlla xeex nu mu waree euh, lépp loo xam ni dafa jëm ci mbirum jaayum yàmba wala ci ci trafic bi te tey yaakaar naa ku dégg quantité bi nga xamante ni lakk nañ ko fi loolu wane na ni euh, wax dëgg yàlla ñu ngi bay seen waar bu baax a baax mais gannaaw loolu nag man damay bëgg Euh, xeex bi dëgg la baax na ci topp produit yu mel noonu produit yu bon yooyu euh, jàpp ko fexe ba kenn bañ koo jëfandikoo mais ñi nga xam ni sunu borom peut-être euh, dafa def ne ñoom seen bëgg-bëgg mooy di dox ci loolu ñu bañ a yem si rek jàpp produit bi mais ñooñu bépp alal boo xamante ni jëlee nañ ko ci jaayum yàmba wala drogue wala lu nu mel loo xam ne yoon da koy tere ñu fexe ba jëf ju bon jooju ñuy jëf ñu bañ cee am mu indi ñu bañ a ñu xeex leen ba nga xam ne duñ ci jëlee benn njëriñ moo xam koom buñ ci jëlee moo xam alal buñ ci jëlee war ko mën a jëfandikoo ndax tribunal kat xëy na boo ñëwee dinañ la àtte dóor la deux ans trois ans tey tey gis ngeen ne sax mbirum trafic léegi cour d'assises nañ koy àtte loolu yëpp pour wane Sénégal ni muy taxawee pour xeex mbirum drogue bu njëkk délit la woon mais léegi boo ko defee ci kanam euh, chambre criminelle lañ lay àtte loolu wane na rek ne Sénégal moom mi ngi joxe signal pour wane ni lii baaxul waaye nag gannaaw loolu nag nañu fexe ba ñi koy jëfandikoo nag ñu bañ cee am benn njëriñ benn xeetu koom-koom buñ ciy jëlee buñ ci tabaxee kër nañu saisir kër gi buñ ci jëndee oto nañu saisir oto yi buñ ci jëndee leneen ak leneen nañu fexe ba teg loolu loxo ndax loolu yoon maye na ko donc loolu daal laa gënoon bëgg tey aussi ñi nga xam ni ñooy suñu collaborateur ñu gën ci bàyyi xel pour que xeex bi gën a mën a euh, nekk xeex bu mucc ayib